fii tey ci bis bu tedd bis bu rëy ndax kiñ koy defal moo toll noonu ñuy bisub Seexul Xaddim ñuy waajal guddi gi nga xamante ne ni moom la sëriñ bi financé fii ci barab bi te jëwriñam taawam ba Cheikh Mouhamadul Moustapha wutaloon ko bis bi àndoon ko ak njaboot gi sëriñ bi nag kenn wut ni moo sañ ci Touba juróom-ñaari at itam la fi dëkk te mooy dëkk bi ko gënaloon ci dëkk yëpp mooy suuf si ko gënaloon ci suuf yëpp waccaal ilaahi maskan yi tuuba abat misla smiha bi jaayi xayri man abat loolu ku ne xam na ko mu ñaan boromam ni ko na nga def Touba muy sama dëkkuwaay gis nañu it muy wax waccaal xarimana man amina wa kun bi xifsihi kafilan damina muy barab bo xamanteni ni lam ci yene won moy tok fi di jang ak jangale fi ñu taxaw ni rek ci bayti yalla dogal Cheikh Moustapha genn daal di woo ndaw daal ni ko demal wol ma demal wol ma sama baay Massamba wax nañu bi ndaw li demee fekk sëñ Massamba da genn bi ñi ni ko da genn kat mu ne kat fu kon nañ mako dabalé fuñu man di ne ci rew mi wax nañ ni ñi ngi ko top waaye Louga lañ ko dabé fukki fan ak juroom ñet biñ ko ko waxee sëñ Massamba daal di bañ ko wat fukki fan ak juróom-ñett mais egsi fii ci Touba booba fekk na daanaka mu xaw a guddi ba fekk Cheikh Moustapha Fatou booba nag fii jumaa ji nekk euh, muy jumaa ji ba tàmbali nañ ko fondation ko ba di ko liggéey sëñ Massamba bi yàlla dogalee mu ñëw Cheikh Moustapha Fatou mu guddi mu fanaan fii ci pàkku euh, jumaa ji yàlla dogal na bi nuyoo ñoom ñaar Cheikh Moustapha daal di làmb ci maxtu mi ab ab bataaxel daal ko woon sëñ Massamba daal ko bataaxel bi de ba ma ko ko baax jox xanaa yow seerewoon nga ci xanaa bisub tay bii moo tax muy fukk fan ak juróom ñent ci tam xarit muy muharram xaram ko waaw waaw mu ko kon nak ni may def moy nañ wo mbolam mi dajé ñu dalé wo mbolam fa saasa ñu dajé fi ci jumaaji euh ku ñu wax señ ndëri boobu ndëri mom wax nañ ni buñ san tollu ci biton mo wax biton ba na wala señ tay ba sare ñoom ñaar ñu kenn mo tok ci kap tablier yalla dogal dalé jël lettre bi wan ko mbolam mi wan ko wa penku wan ko wa soowu wan ko wa salim ak wa gànnaar ma xibli yépp dal te kenn ku ne xamoon na fi suuf si toll ci moom ak barab bi ni mu toll ci moom waaye mu denkoon nag Cheikh Mouhamadou Moustapha ni ko naa dem Touba te bu xaddam waxoon ko ni su ma demee Touba lu ngeen tàmbalee te su ngeen ba dem ma dana mel ni demaluma leen woon fenn ay dénkaan yu baree bari yoo xamante ne ni e, batale na ko ci ak bëggam ñëw ci dëkk bi Cheikh Mouhamadou Moustapha itam def ca. ak jàmbaar def ci yitte ba ko sëñ bi santoon dénk ko ko te mu jafe woon lool fanweeri at ak mënta nekk bi mbir mi xewee diggante timis ak 5 heures du matin sëñ Touba am na ak bëggam te mooy dëkk Touba te dootu fi jóg loola njàmbaaru Cheikh Mouhamadou Moustapha moo tax mi wax ni Touba bu tollee fii mu toll tey ñu ni mooy deuxième capitale senegal te dëkk bi amagul ñaar téeméeri at loolu tedd gi fi seigne touba tedd rek tax. biñu woné mbolo mi lettre ba nopi kon lettre bi moy lan seen xam da ko caa gulon ni sa bo demé té suma andi touba ba waxtu ba delisi na nga wo mbolo mi ñu dajé fi nga fatali len bis bi bis bi moy lan njëkk jóge fi munta ñak waye nga fatali leen liggéey ndigalul jumaa ji ñi fi Seexul Xadim won euh waye nak ñu yendo jang alcorane ak jang khassida wax nañu bëccëgu kéro dañoo yendo jang alcorane ak khassida nañ ko doon jànge nag mooy cosaan li ba tey ci noonu lañ ko defee mooy jàng ñeenti kaamil ci ci barabu sëriñ bi ñeenti koñ yi barab bu nekk ñu jàng fab kaamil waaye jàng fukki kaamil ak ñaar ci biir mihrab bi mbooloo mi des nag door a àndandoo ñiy jàng xasida jës bul ak mawaahib ak muxaddimaat ak mimiya bu ñu demee ba julli takkusaan Cheikh Moustapha def ab discours mooy soñu nit ñi ci ñu bàyyi xel bis bi waaye soñu nit ñi ci ñu bàyyi xel liggéeyub jumaa ji waaye soñu leen ci jaamu yàlla soñu ci liggéey kon noonu la ko Cheikh Moustapha doon màggale nga xam ne diirub li mu ko màggal ba 1944 nga xam magal, magal màggal gi gi mu fi mujj màggal magal googa soo procès verbal ba dalay woon ne magal gi magal gu yoonu murid yëpp la won. bis boobu nag nga xamante ni ci la jógee njaareem ñu fanaan si Touba ci këram gu mujj gi bis boobu la sëñ Moussa wax ni képp ku fi fanaan ak moom suñu borom say bi wax ni gunge si muy jundi ak xam sa tori muy wax muy mbollem ñi am cër ci suñu borom andon ak moom seigne Moussa nee na bu guddigi gi del siwaatee ca déwén sa ñoo ak moom dañ fanan ci dëkk bi képp ku fi fanando ak ñom suñu borom dañ la jéggal sey bakkar lool nak seigne Modou dirëb lim fi nekk diko woté bimu fi joggé njaboot gi mu fi bayé taxawee diko woté seigne Cheikh Mbacke nekk ci bop taxaway yi ci seigne Cheikh taxaw ak njambar gi mu ci def ak effort ci sam ndono motax ñu naan magaluk seigne Cheikh waye magal gi du magaluk daru Xuddos du magaluk seigne Cheikh du magaluk seigne Moussa defaluñ ko seigne Moussa seigne Touba lañ koy defal sëñ Tuubaa nag taalibe yëpp ñoo ko ci am wàccuwaay waay damay jàpp ni taalibe bu ci amut wàccuwaay sax yaa fuusa la ko yóbbe wala sax ñàkk xam waaye dooni kenn dama caa génne bis la daal boo xamante ni sëñ bi lañ koy defar. ndax boo xoolee document ba képp ku aju si yoonu murid rek ngay kilifa am nga ci ab responsabilité mën naa caa tudd kenn rek sëñ Mor Jojo Fall wax nañu moo doonoon booba porte parole ba nga xam ne moo doon porte parole kër bis ba bis ba. Cheikh Moussa di ko dundalee noonu ba ni mu fi jógee sëñ Fallou dundal ko ba 1947. ci le seigne fallu ñëk wote magalu di ci safar gi nga xamni cheikh xalim da ko santaane woon fu way nek diko fa defé waaye mom ak yaatalam nak ak bëggum lu baax loolu nak di wëy seigne Cheikh manam ku fi nek diko dundal waye nak sëriñ Cheikh it li tax mu ràññee ko ci moy bis bi da ko fonkoon lool ne bis bi doon bis bi neewut newoon neewon bis bi doon bis bi fangu nako ko bàyyi doon kon non la koy kon non mo andi magalu sëriñ Cheikh wote gi mu ko ci ci Daaru Xudoos it moo ñoon magalu Daaru waye ko ni mo suñu bis bi dal bis bu tege ci ndigal Cheikh Khadim la Cheikh Moustapha doon ko dundalee na ko Cheikh Khadim santaane woon bi mu fi jógee mboolem yoonu yëpp di ko dundal ba ni ko suñu Cheikh doon dundalee ba ko fi nekkal Cheikh Moustapha di ko dundal ba ci Amadou Mokhtar mii yàlla na fi yàgg ci wér gis ni itam ni fu sëñ bi ne foofa mooy doon capitalu mouridisme faneen fu sëñ bi ne woon rek foofa mooy doon capitalu mouridisme kon indi gin ko indi Touba loolu tax Touba doon capital mouridisme te yoon wi itam mënta ñàkk ab chaise boo xamante ne nii fa lay fa lay toogee gis ne itam jumaa ji fi nekk bu fi sëñ bi néewul woon moom jumaa ji du mel nii mu mel du toll nii mu toll du àgg ci waxtu bi mu àgg tam loolu lépp dañu ne ni yoon wi tënkoo doon benn baat Cheikh Mouhamadou Moustapha moo ko def taxaw njabootuk sëñ bi taxaw yi itam mag ñu fi sëñ bi bàyyi woon ñu doon wut yàlla loolu lépp ci ay taxawaayam la wutal ko aw yoon itam muy diggante njaareem ba Touba di yoonu saxaar woo xamante ne ni néegub yàlla bi doon ko tax du pour bagage du pour commercial du pour dara tabax jumaa ji dong dong dong ko taxoon a jóg bu ko wóoroon ni mën naa tabax jumaa te yoon wi du ci doon dara amul soxla ci aw yoon waaye lam amoon soxla rek mooy néegub yàlla bi nan la ñuy def ba mu taxaw ñu ko doon liggéeyal ñoo ko tegal sàttu yoon wi noonu itam la wutale sëñ bi bis muy bis bii nga xamante ne nii boo demee ci xas dëgg mu waxi bu rahman sëñ Tuubaa nee na mooy bis bi ma gënal ci samay bis Nak mom la doon ñaan boromam ni kon na nga def bis bi gën ci samay bis moy bis bi may ak yow ngissat ci mbindam adil wala tajaalil mawta raahatan wa mafraha mu ñaan suñu mom ni kon na doon ab noflay na doon bekté tay damay wax ni bis bi nga xamanteni ni mbollem lu bon lu ko ay nonam doon tek mbollem jafé jafé yuñ ko doon tek mbollem tank tank yo xamanteni doon nañ ko ko tek mu di ko tego diko ko ngir yalla kérok bi lolu jexé bis boobee bisu mbégte la ci Sëñ nadoon man na doon naqar ci njabot gi fi ndax minel ga ak soog so ci mom ak yitte yi ñu amoon ci moom ak yooyu yëpp tam féete woon leen fa ñooñu mën nañ koo jàppee loola waaye lii moom bis la boo xamante ni nii noonu la demee ci sëñ bi waaye bañ koy wax ba sëñ Moussa déggee dañu du ci sëñ Touba